Dakar, notre plateforme d'information. Vous l'avez suivi, vous l'avez vécu avec nous. Il s'agit de revenir sur un dossier qui a été jugé à Ziguinchor, jugement qui a été cassé par la Cour suprême. La décision de la Cour suprême fait office de jurisprudence. La jurisprudence, c'est quoi C'est une décision des juges qui s'impose aux autres juges. Et comme vous le savez, il y a une hiérarchie. Le juge suprême, le juge supérieur, la Cour suprême est en tranchée, le juge inférieur ne peut pas faire échec à la décision du juge supérieur. Par conséquent, la décision de la Cour suprême s'impose. Donc même cette audience, pour moi, elle n'aurait pas dû avoir lieu. Mais ce que le juge euh, de la Cour suprême a dit, la signification a eu lieu dans les normes. Donc Ousmane Sonko était informé de sa radiation. Il n'a pas fait de recours. Il est fort clos. Il n'a pas fait de recours dans les cinq jours. Il a attendu une vingtaine de jours pour faire un recours. Et entre il avait saisi la Haute Cour de justice, la Cour de justice de la CDAO, pour dire qu'il demandait sa réintégration le 9 septembre. Donc il, est informé. Quelle contradiction. waaw li ñu mën a wax tey mooy li fi am tey dañu doon attewaat li ñu attewoon attewaat ko atte bu njëkk bi joxoon na dëgg Ousmane atte bu mujj bi attekat yu mag yi yàq atte bu njëkk ba kase ko daaneel ko xotti ko ni li ñu atte woon Ziguinchor dara baaxu ci xam nga ni atte tey bi sax mënoon naa ñàkk wax dëgg yàlla nag ndax ñi atte tey mooy juge yu ndaw yi amuñu weddi juge bu mag bi cour suprême mooy ki nga xam ne bu dee attee mooy jurisprudence mooy dañ ko war a topp ndax day joxe yoon day joxe tegtal fii ngeen war a jaar yéen juge yu ndaw yi kon benn juge bu ndaw mënul weddi juge bu mag kon tey ji audience tey bi mënoon naa ñàkk lu mënoon a ñàkk la audience tey bi mënoon naa ñàkk ndax ponkali bu ñu waxee cour suprême ba pare benn tribunal bu ndaw mënul weddi cour suprême li mu wax cour suprême nee na ñun ñoo am dëgg état bi am dëgg Ousmane Sonko yëgoon na si fii nañ ko ni ko génne nañ la ci liste yi deful dara di xoolee di xoolee di xoolee ba mu nekk ko benn bis mu ne léegi rek moom day attaqué loolu te ci diggante bi kat dem na fi cour de justice CEDEAO attaqué décision boobu kon kay sa waay lu may waxati moom moo fàtte wala mu négligé wala comme ni ko waxee woon mooy faalewul justice bu ñu ma wooyee du ma wuy ji ba tey li ko ci fekk fekk ko ci yow yow yow yow juge oo la yoon oo la nga ne du ma wuy ji maa lànk du ma wujji tribunal Macky Sall léegi gasta gasta la maa wujjul fenn ah gasta gasta bi de massa massa la mujjee léegi ah juge bi na lay weddee juge bu mag bi xanaa ko li daloon Ziguinchor dalaat ko xëy yéen am ngeen xel Ziguinchor joxoon na maaje ba mu jubilé tëpp fu dañuy fecc Cour suprême ne na hey yéen da ngeen a gaaw a fecc njëkk a fecc kat taxul mu jéggi gew nekkate sa waay teel ngeen a fecc di kii li ma te dara baaxu naa ko kaas mooy kaase kay toj mooy toj toj naa ko xotti naa ko rendi naa ko attel bi yëpp laa xotti dem nañu attewaat leen ci même chose yow kay jëlu nga naan demal demal leen feneen ndax yow mi mag ponkal mi atte ba pare ku ndaw ki bu ñëwee fi nga jaaroon rek lay jaar bu ko deful yow it nga jaaraat fi nga jaaraatoon rek muy rëbb kon kay li lii jik juus bu ndaw bi mooy wax la juus mag waxoon rek ni bu ni bu pour waa amee te waxul la ka waxoon comme mag ka ñu la ko waxaatal mu wax la mu waxaatoon rek xam nga mbir mi lan la do affaire ay ay daway bëgg a bokk ci élection de Ousmane xam ne du bokk ci élection day def communication ndax dañ ko fàtte woon dégg nga xale naan na moo nañ la Ousmane na mu nañ la waaw ginnaaw gas gas rek ca na mu nañ laa lañ fi mujjee ah na mu nañ laa ah yow nga ne da ngay dóorante garta gaasa bu jigi ñu naan di naan nam ñoom la ci bërëb ab ruq laa gis naan namu nañ la mais dëgg-dëgg Sénégal moo neex di ci ngànn ngànn lu di jaay gérée di dégg yow doo ni yàmmu dëkk bi ba mu tus ku ma laal dëkk bu tàkk kuy tàkk bi da ko moom amul fi ñaari ay xale yu saaga la fi am gis nga ko romb léegi di ñooñu façon yooyu la am ko romb di saaga ak ay dof rek la am waaye nit ku normal du ànd ak moom. sa teewaay li teewaay li ko wundu mooy li ma yàgg di def rek depuis vingt ans ma nekk ci mooy képp ki nga xam ni tey yàlla def nu jàpp ni sa ay droit ñoo ngi koy néewal. ñu ñëw taxaw sa wet waxuma la ak ba mu tombé ci ki nga xam ni Sénégal yëpp xam na nañu sama diggante ak moom muy le président Ousmane Sonko moo tax ñu ñëw ci procès bi tey di ñaan suñu borom li fay génn doon li nga xam ni dina ko permettre ñu mën jot fiche de parrainage am mën a dem comme tous les autres Sénégalais tàmbali tey jii ñuy parrainé candidature te li ñuy gëm mooy démocratie bu mag comme Sénégal ñëpp di ko way fépp ci àdduna bi ak ci Afrique bi mm-hmm. dafa baax bu ñuy organiser élection bàyyi képp ko bëgg mm-hmm. nga am la possibilité de compétir moo tax comme ni ma ko defee ci bés yëpp yi nga xam ni yu jëm ci moom la moo tax ma ñëw tey di ñaan suñu borom comme décision bi mm-hmm. fiy génn permettre ko dans les meilleurs délais mu mën a tàmbali seen ngeen am yaakaar tey euh, réellement mais bu fekkee tey décision bi dafa waroon tey seen ay attentes lu war a doon taxawaay bi. waaye ñu am yaakaar bu tax nga bëgg génne leneen. mun na mun na waroon parce que procédure bi yàgg na xëy na préparé nañu. Sénégalais oui président quelques mots en français aujourd'hui vous êtes ah, venu à à à ce procès quel est en tout cas les sources. ma terminer question rek di dellu di am yaakaar rek mhm. bëgg des ci yaakaar ndaxte je suis très optimiste daal ma des ci yaakaar donc je suis venu comme d'habitude soutenir un ami et un frère le président Ousmane Sonko mhm. et depuis vingt ans pour ceux qui ma présence au procès d'hommes politiques dont je jugeais que les peines ou en tout cas les épreuves qu'on leur faisait subir n'étaient pas conformes à ce que notre démocratie et les libertés demandaient et nous disaient. Et c'est le cas aujourd'hui pour le président Ousmane Sonko. J'étais sur le terrain, mais vous avez vu à chaque fois qu'il s'est agi d'être à ses côtés, de venir le soutenir, j'ai toujours préféré marquer ma présence et c'est ce qui m'a amené ce matin au tribunal et j'ai pris. Que cette décision qui soit rendue tout à l'heure soit une décision dans le sens de le réhabiliter, mhm. lui permettre de disposer de ses fiches de parrainage et de retrouver son nom sur le fichier électoral et comme tous les autres Sénégalais qui le souhaitent, mhm. de pouvoir participer à la présidence. Est-ce que vous avez espoir qu'aujourd'hui justice sera dite? J'ai très bon espoir après la plaidoirie très riche que j'ai écoutée de ces avocats, qu'ils soient réintégrés et que cette démocratie enchantée par nos voisins